mu ne as sunanul mu akkadatu sunna yi ñuy feddali min asalawaat yi si julli yi arbaatu ñeent la ne julli yi sunna yi si feddali ñeent la al ula bi si njëkk waxee moom awkaduha mooy si gën a feddaliku al witr mooy witar waxee moom witar rakaatun waaxidatun benn rakaa la waaye da xulu dina dugg nag waxtuha waxtam al ixtiyaar yi bay koju ixtiyaar mooy waxtam nga ñu tànn mi ngi duggee minal bil falaati si noppi min salaatil isha yi si julli ke al axirati bay bay aji mujj xamante ne moom mujj si julli juróom yi soo ko jullee pare rek waxtu taaram dugg na moom witar weekun dina nekk nag moom witar masbuqan di lu ñu rawee bi shafaan si shafaan mun fasilin mun fasilin mbir muy aji taqale an haashi moom bi salaamin si sëlmal moom nag da nga njëkk a julli ñaari rakka mooy safa ah sëlmal doog ko julli moo tax mu ne masbuqan bi shafiin munfasil an hadi salam way sahabu soppef nag an yaqara moom nag loo si jàng baax na waaye nag li ñu sopp nga jàng ko si mooy bi an yaqara mu jàng fi rakaatil ula si rakka bu njëkk min ashafa si shafa baadal fatiha ginnaaw fatiha bi sabbihisma rabbika al ala rakka ñaareel bi baadal fatiha bi qul yaa ayyuhal kaafiruun la jàng fi rakaat bi ci rakaat bi tam nag mu jàng bi qul wallahu ahad wal muawwalatayn ak falaq ak naas mu ne wa man nekk ku fàtte al witra witar aw naama mbaa mu nelaw anhu wulis ko mu nelaw ba julli ko su ma tayqala topp mu yeewu waqad baqiyta des na li tuluu'i shams ñeel fenku ñeel xaluk fajar miqdaara rakaatin lu toll ne rakaat aw rakaatayn ma ñaar rakaat fii noonu comme desul ko day bàyyi al witra witar wa yusalli mu jul asubax suba soo yeewoo soo soo julliwul witar ba fàtt nga fàtte ko mbaa nga nelaw soo yeewoo fajar bu fekkee ne li des fajar di jot fekkee fekkee li des fajar jot benn rakka lay teel wala ñaar rakka kon mbaa da ngay bàyyi witar bi julli suba waaw fekk jant وإن اتسع أن يأتنا الوقت وقت وللثلاث ركعات نيال يتراكا أو أربعة بعد نيال تراكا تكي وقت النبي سيدس من نسجد نيال تراكا بعد نيال سيد فإن لكم يصلي لجل الوتر وتر ثم صوف الصف لجل الصبح وإن اتسع أن يأتنا لخمس نيال جروم راكا وفيك لدس نك من نجروم من نسجد جروم راكا سوقت صلى نجل أشهر عشفا والوتر الوتر والصبح أكسبا وترك مبايع الفجر الفجر وإن تسع نم ياتنا لسبع يلجلون يا ركع ركع لسبع ركعات يلجلون يا ركع فلا نجل الشفعة شفا والوتر الوتر والفجر الفجر والصبح أكسبا الثانية يعني يعني في سنة ينفدلي صلاة العيدين مجل نار عيد كما تبسك القلب yow sunnatun akramtum bil fadli la fi xaqi man xaq ki nga xamante ne lazamuhu dina ko aljuma juma ñi ñëpp képp koo xamante ne juma war na rek julli iid war na la mustahabatun mu lu ñu sopp fi xaqi la abdi nag si aqu jaam jaam nag si jaam jaam si jëm boppam doon noo sopp si moom mu julli iid wal musaafi ak kuy tukki wal marati ak jigéen wa sifatuha melooga nag mooy ni nga koy julli rakaataani la ñaar rakaale bi gayri azani wala iqama amul du am nodd du am liqaam yukabbiru dina kabbaar fil ula si si raka bu njëkk bi ba'da takbirat ihram ginnaaw kabbaar almal sitta takbiraatin juróom benn kabbaar ginnaaw nga kabbaare almal da ngay kabbaar juróom benn kabbaar mu juróom ñaar wa fi saaniyati si ñaari raka bi mu kabbaar xamsa takbiraat juróomi kabbaar ba'da takbirati qiyaami ginnaaw ba mu kabbaare ginnaaw kabbaaru taxaw ji waaw mu juróom benn walaay saxa bu dee ko sopp nag rafa lii di leen yëkkati ñaan loxo fi cheyin si dara min takbir yi si kabaar yi si waa takbirati ihraam yi ne kabaar ama kabaar ama bi doomu la ñu sopp yëkkati sa loxo nañ def yëpp sopp ñu ko wa inna sa nem fàttee na ak takbira kabaar rajaana del ilay jëm si moom maa lima baax li fekk tegul yére yi ñaan loxoom ala rukbatee yi si kaw ñaari bëti woo moom waaw soo fàttee leen si kabaar yi nga bàyyi benn soo ko fàttali ko bu fekkee tegu ko su ñaar loxo si bët om da nga koy da ngay kabaarat waaw parce que jarul mu si jël su koy baax de salaam alayhi salaam ay saabu soppeef na al jëfu bi rek teg bi si kabaar bi kabaar nag sopp na soo koy kabaar nga jural ko ko si kaw wata tayyuba ak gëtt sol mooy parfum bu wata zayun ak taaru bi siyaa bi ci yére aljadida bu bees li man yaqdiru ñel ki atana alayha ku am ku mën a jël ñële bees nga jënd ko nag sol ko mu gën wala jooju dellu ak dellu min tariqin bàyyi ko si yoon xëy la ci bu bokkul ak yoon bi nga xamante ne jaay dikkee nga ñu naa si moom soo ñibbi tamit soo jógee jumaa si jàkka ji di ñibbi nga aw yoon bi nga benn yoon nga aw benn yoon bu bokkul ak yoon bi nga awoon ba nga ñëw si jumaa ji waaw ngir wal fitul dog nag xabar wax yi di njëkk gontu yéen musala jëm si julliwaat ba fii iidu fitri si iidu korite loolu tamit sopp nañ ko dégg nga bala ngaa dem julli jaaba nga daal topp ba taxiru ak yéexin fii iidu nax yi ci feetu lëg mooy feetu tabaski fekkee tabaski dina bëgg nga yéexee ba googu xaar ba ju ba jugee jumaa ja am ñooy sax nga xaar ba ngay xaddi nga dog si rek si moo gën wa takbiru ak kabaar fii si moom aqiba xamsi achara xëy si mujj fukk ak juróomi farat aqiba xamsa achara fayda mujjanteelu fukk ak juróomi farat waaw tabaski soo ko jullee pare moo bëgg tisbaar googu ngay commencé di wàññi ba fukk ak juróomi farata mat farata boo jullee da ngay da ngay kabaar mooy kabaar allahu akbar allah ma ñeent fan yoo ñaa ñetti fan la ak xaal awal haa zuhru yawmi naxri mooy tisbaaru bisu tabaski wa axiruha mujj ga subaxu yawmi rabii waaw suba bisu ñeenteel ba ñeenteel fan ba ci suba gi soo jëlee ba wax ko pare bi nga xaree wa si wat takbir mi law kabaay nag mooy allahu akbar yàlla aji maagir allahu akbar yàlla aji allahu akbar laa ilaha amul benn mburu bu ñu jaab illallahu wallahu yàlla akbar aji màgg la allahu akbar yàlla aji màgg la walillahi ñenn yàlla alhamdu cant asalisatu ñetteel ba salaatu kusuufi shamsi mooy julli muuru jant bi wa yowm sunnatun sunna fi xaqi kulli mukallafin si àq bépp mukallaf zakaran moo xam góor la aw insan aw insan ba jigéen koy saxaabu soppeef na iqaawaha tab tabbil ko fi masjid si jàkk sopp na nag suñ koy julli julli ko si jàkka waa jamaa ak ak ak ak ak dajale ha ñel ko wa jamalaha waxtu waa waxtu ko nag min xilli naafila ci ñu bàyyi ko ci waxtu ji dagal naafila li zawaar jëm ba zawaar mooy jàng na jant bi mais ba waxtu bi bi bi nga xamante ne ci la naafila dagan dugg xaw la waxtu ba commencé jëm ba zawaar waaw wa si wattuha meloo bi rakaataani la fi kulli rakaatin rukuaani raka bu nekk nag day am ñaari day am ñaari rukoo waaw bi xëyri azan wala iqam bi xëyri azan si lu nodd wala wala bi iqamat bi jàngee ñu xam dégg nga soo jàngee fatiha saraka bu njëkk bi jàng baqara mu jeex rukoor soo siggee si rukoor si rukoor rukoor rukoor bi too ne fatiha baqara nga siggi si rukoor soo siggee si rukoor doo doo doo doo si jot da nga jàng fatiha jàngaat Ali Imran bu ko waxee soo siggee rek nga dog siggee moo tax ma ne fii ku rakaatin rukuwaan raka mu nekk ñaari rukoo lay am bi xëyri azani sulul nodd wala bi xam jàng ne xam wala xaraw dina jàng nag fil qiyaamil awwal ci taxawaay bu njëkk bi nga rakaat wala ci raka bu njëkk bi baadal fatiha ginnaaw fatiha baqara lay jàng wala nga jàng su fekkee mokk la baqara nga jàng saar yoo xamante ne nga jàng si saar ci alxaan loo xamante ne dina toll baqara solo juróom xijib wa fi lqiyaami saani taxawaay ñaareel min ha baad alfatiha ginnaaw fatiha ali imran ali imran lay jàng wa fi lqiyaami awal taxawaay bu njëkk bi min rakaati saani si rakaab ñaareel ba baad alfatiha ginnaaw fatiha mu jàng annisaay su jàngee nisaay ba rukoo su sigee rukoo lu si jotee taxawaay jàng fatiha jàng maayida ñaari rukoo wa fi lqiyaami saani ci taxawaay ñaari baal xate ginnaaw fatiha almaida la jàng wa salaatu xusuufi xamari julli xusuuful xamari mooy muur weer bi sunnatu sunna la wasibatuha meloo gi kasa il nawafili ko mboolem naafile yi la rek ak xatal ñaar raka bi rukuuin ci benn rukuu waaxid bi rukuuin waaxid ci benn rukuu wa qiyaamin waaxid ak benn taxawaay wal qiraat aw jàng fii maa si ñoom ñaar jëfal ci biral wala yajmau deful daje deful deful daje laxaa ñel ko suñ ko julli nag kenn ko julli mbooloo ko ñu ko julli si nekk rek ñu ko suufa xamee rabia si ñeenteel salaat istisqa moo julli mbaaw naan wa takun dee nekk nag la ay islaahi zari ngir yéewalal mbay mi bu fekkee mbay mi dafa wow ndox amul jur yu mat ah boobu lañ koy juri dañ ñaan yàlla mbaaw naan aw aw li subi xayawaani aadami mbaa naanu xayawaanu yooyu ko di doomu aadama mooy animaux domestiques aw xayri bi waaw mooy loolu wala xayawaan sauvage yi nekk ci àll yi wasiwatuha meloog tasa i nawafili comme mboolem naafile yi la rakaataani ñaari rakkaa la yuy jaxal yuy jaxal dina piyo fii ci marché ñoom ñaar dina xiraat yi ci jàngi fasul jeex na rakaatal fajiri ñaari rakkaa fajar moom tamit sunna yi la bokk raxibatu lu ñu xemeem la tax tax lu dina aajow ilaa niyet ñu jëm si yéene goo xam ne tax suha def nga ko jagleen waaw xemeem bi nga xemeem moo tax xemeem bi ko xemeem moo tax moo sopp na sax soo ko julli nga yéene ko yéene maa ngi ko yéene ñaari rakkaa fajar ndax yéen tamit nee na ñaari rakkaa rakaatal fajiri xëy na dina dina ma fiyaa ñaaraakaa fajar moo gën adduna ak li ci biir wa waxtuha waxtam nag baada tuluuci fajiri aji nekk si ginnaaw xaru fajar wa man daxala ku dugg nag al masjida jàkka fa wajar mu fekk imam imam musalli mu julli asubax suba tarakahuma nee na day ñaan ñaan day ñaaraakaa fajar te julli suba wa daxala mu dugg maahu ànd ak imam fa it uqima nem taxawaleef na ali si moom asalaat julli wa huwa moom xaarij al masjid wa huwa xaarij al masjid mi si biti jàkka ji te ñëw na ko ñaar kàccu xaadee nañ julli ñoom ñaar maanaam ya xaw di fekk dagalul fawaat ak ak suñu faatu ko rakka fekkee imaam da nga ñëw si jàkka ji da nga ñëw avant nga dugg si jàkka ji nga nga dégg ñuy liqaam ñuy taxawal julli te fekk julli ko ñaar ak fajar mais nañ ko julli si biti jàkka ji doo ko dugg li fekk na nga dagaloo soo ko nekk soo ko fi julli rakka raw la nga bàyyi ko fi seen ànd ak yow moo tax ma ne fay ñëw yar kàccu xaadee nañ julli ñoom ñaar maanaam ya xaw di fekk dagalul fawaati rakaatin faatu raka fay na xaaf ñoom ragal na daalika lool daxal na dugg ma al imam ànd ak imam wa yustahabu soppeef na an yaqara mu jàng fiha fihi ma si ñoom ñaar bi umlul quran si ndey aw quran faqat tong waaye nag solo nañ jëlee si anil Ghazali mu ne képp ku képp ku jàng ñaar raka fatil alam na alam tara kayfa qasarat anhu yadu kullu aduwin wa lam yaj'al lahum ilay sabil mu ne benn noon du sa benn noon du la mënal dara waaw mu ne salaatu duha jul yoo yor mustahabatun lu ñu sopp la wa aksaruha li si ëpp nag sabaan rakaat juróom ñu salaata la su bëri ba bëri ñu salaata la wa tahiyatu masjid yi ñuy jàkk tamit sunna la wéye moom rakaata ñaar rakaat la qabla ay ji su dañ jokk ñu toog wala taful du faat nag mbir juli si toog soo toogee tamit fàttali ko moom nga jóg toog du ko faat waaye nag li gën mooy bala ngaa toog nga julli ko waaw wa qiyaamu ramadan taxawaayu weeru koor ah moo tamit si sunna yi la bokk wowum salaatun wa ushura rakaatan ñaar fukk ñetti raka la bi chafe ànd ak chafa wala ci am ko witr gi ak chafa gi ci lañu bokk wa salaatu julli qabla zuhri njëkk tisbaar sunna la wa baadu ak ginnaaw tisbaar wa qabla al asr ak njëkk na julli takusaan wa baadu al maghrib ak ginnaaw timis wala isha ak gee ak ginnaaw gee wa laysa fi dalika didi nekk si naaf yi ngay naaf yi nag lu njëkk nga jul tisbaar ak ginnaaw takusaan ak lu njëkk nga jul takusaan ginnaaw timis ak ginnaaw gee taxadiidun daytal amul kenn niw tiw ko ba li fi nekk yu sali dina julli ma la nga xamante ne sara jàpp ne la ko ñël ko waaw da nga julli li la jàppandi moo xam ñaar la wala ñeent te juróom benn wasa jatu tilaawa si jootu jàng lil qaari ñeel aji jàng ji kooku tamit sunna la wa qaatili istimaa yi ak aji jublu dégg waaw ki nga xamante ne moo toog di déglu aji jàng kooku tamit ki aji jàng sa ak sa place si jot moom tamit daaw si jot in kaane nekk na alqaari aji jàng saalihan di ko yow yi imaama ci ñeen jiit nda in kaane moo nekk zakaran di góor baaliran di ko majeur mutawaddi an di ko am jàpp xayra qaasi ismaa naas naasi mu bañ a jublu nag si jàng gi dégtal nit ñi waaw xusna qiraatihi rafet ci jàngam waaw ba bu fekkee mu jàng gi daal lu mu neex neex na nekk yàlla doom wa iddatu sajdaat wa iddatu sajdaat li mu si joot allati yi nga xamante ni nag yustaru def na si joot lahaa ñeel ko si ngir Maalik ihda achara fukk benn la sajdatun si si joot waye moom maa ada allati la rek si joot ba nga xamante ne fi najmi mi ngi si suuratu najmi kenn du ko si joot si ngir Maalik wal inshiqaaq ak si joot bi nekk si inshiqaaq wal qalam qalam mooy ñun wa saaniyatal xaji ak ñaareelu xaji xaji ñaari balaa si joot la am bu njëkk bi lañ si jot ngir Maalik mu ñaareel ko ni ko xayal
waaw salaatul janaasa julli tàdd fardu kifaaya fardu kifaaya la mooy fardu doy la bu ko ñenn ñi taxawee wàcc nañ ci des waxi la am ñu ne sunnatun sunna la warkaanuha ponk ya xamsatun juróom la loolu bi ci dëkk an niyatu mooy yéene asaani ñaan mooy taxawaay ga asaani si ñetti at takbiir wala kabaar boobu mu arbaatu takbiraat ñeenti kabaar la dégg nga ida zaad nem doon naan imaam imaam xaamis lañ juróomeelu kabaar nag lam tatul du yàqu salaatuhu julli ga wala yatba'uhu waaye nag du ko topp man xalfahu ñu nekk ci ginnaawam ay sallimuuna dañuy sëlmal wala yantaziruuna suñu ko dañuy sëlmal daal di jël seen ñëw def seen yoon ay saxaabu sotti wax nag rafetlu yi dañuy yëkkati ñaari loxo fi takbiir wala ci kabaar gu njëkk gi faqat dong waaw ci des nag da ngay wax allahu akbar wal ibtidaawu ak do ak tàmbale bilhamdi bilhamdulillah ci sant yàlla bilhamdulillah bilhamdulillah sant yàlla arrabiu ñeenteel bi adduaa mooy ñaan ñaanal maytu ñeel aji dee ji bi si kulli takbiratin ci jeex ci ci jeexital bépp kabaar kabaar bu nekk saa yu kabaaree da nga ñaan néew bi doo kabaar ak ayu duaa in bu mu ci ñaan nag tey sara boo xam ne jàpp ne na ko waaw ñaan bu la jàppale rek te nga mën ko ndax ñaan yi ñaan néew bëri na loolu incha allah bëri na walaay duaa un ñaan maxsuum bu ko jagleel amul ñaan bu ko jagleel alxamis juróomeel asalaaw mooy mooy sëlmal wa yusallim dina sëlmal al imam imam waahidatan benn sëlmal an yamini ci ndeyjooram wa yusmiu yusmiu dina dégtal nafsahu boppam wa man yedi ak commune sëlmal gi nag yaa koy dégg ak ki la ki dee nag yow yow ngi sëlmal ci kaw wa yusallimu dina sëlmal al imaam imam waahidatan benn sëlmal boo xamante ne yusmiu dina ko dégtal nafsahu boppam faqat dong moom dong koy dégg salaamaaleykum wala yoddu bu mu delloo nag al imam imam bu mu delloo sëlmal al imam si imam alxo
jël na ko lool